bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dhawi ridwani wa tamkin ci ndigalul kilifa gu tedd gi cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne moo fi jëmmi Serigne Touba tey ci kaw suuf ñuy ñaan suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool tam ànd ko gër ba naal yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu borom may ko kàttan ak ba lépp mu mottali ko nu kawe njortam ci barkeb Serigne Touba kon yëkkati kàddu yi ci diggalam ndax sëriñ bi seen digganteeg moom li ma ko doy doy ci kàddu xam naa ne tuuti na ci ndax wóor na ma ne. lim ëmb ci yéeneem ci xolam làmmiñu mën koo génne lu moo ko leeral leeral am na ci loo mënuma ci àgg waaye nag la sunu kilifa bu baax ga waxoon lu ne fàng deesu ko woon ku am ku amuti bët te seen digg ak moom ñépp ko xam walay chaman chamihakal mushahidi lim ma wax nag mooy sëriñ atu yaag mboolem ñi nga àndal ñëpp ci daara bu Tarqiyyah sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci jëf ji ngeen jëf tey te mu jokk ci jëf yi ngeen jëfoon naka jëkk te nee mi ngi sant yàlla bu baax a baax di sant sëriñ Touba sant gi muy sant yàlla it mooy leeral gi nga xam ne suñ borom teel na ko leeral seen mbir mu dal xel ci yéen. nee na ni xelam dale woon ci yéen nag léegi yaqin la yéen nee na loolu nag mu ngi ci sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba ndax nee na ba ngeen jógee rek suñ boroom da leen boole Serigne tuwaa boole kook yéen moo ànd ak yéen di leen gunge ci liggéey bi yéene leen ko xam ne Serigne Touba dara jomb ko loolu moo waral seen doxin ba agsi bi tey liñ ci waroon leeral la ci ëpp sëriñ Youssou mi wax ci sa tur leeral na ko ci seen digge moom ndax. loolu ma leer ci Serigne Touba wax ko ci bayit yooyu ansihim bi abaahum kulla xiini loolu ñépp a ko dund seen digg moom ndax ku ne xam na ne mosu doone seetaan waxtu wu ne waaye lu mu mas it ci ndigg rek la koy defee ndax sëriñ bi moom ku ko xam ku ne xam ne ni ko suñu boroom binde mooy lii nga leeral léegi rek te lool waxtu wu ne da koy wax sama kilifa dama koy bàyyeek sama jëmm bàyyee ko jëmmam moo tax ku fi mas nekkit du am xalaat lu mu xamit da ngay yaakaar ne xëmu ko ndax ndax noonu lay doxe kon nag loolu njabootu Serigne Touba gépp wëlbatiku nañ fa séene topp ci ginnaaw àndeek moom ci noonu ngir xam ne kilifa kenn du ko jiitu kon laa yasbiquunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluun loolu suñ borom binde malaayika yi ndax ñoom mënuñoo def lu dul ak topp waaye loolu itam taalibi Serigne Touba yi loolu la ñu fas topp ci ginnaawam mooy di ko diglu te fas yéene bañ ko jiitu ci lenn kon nag sëriñ bi neen mi ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm ci seen pëstéef ak seenu doxin nee itam nii mu àndeek yéen itam te yéene leen ko te am yàqin ci yéen mi ngi fas yéene ànd kook yéen ba ëllëg ci kanam Serigne Touba loolu lay doon na sëkk seere mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yoon wi nga xam ne tegu ngeen ca muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa yàlla ngeen ci àgg fa ngeen ci bëgg àgg te xelam dal na ci njortam rafet na ci ndax yéen xam na ne bi ngeen di sosu yéen ngi sosu ci nekku Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi ngeen sosoo itam yoon waleen Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tegoon yéen a ngi ci mën a gëni ndax daleen waxoon ne leen yéen na ngeen xam ne mbooloom Sëriñ Tuubaa ngeen kon nag maa ngi leen di digal képp ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa bu leen fa kenn jiitu fu Serigne Touba xëye na ngeen fa gonte fu mu gonte na ngeen fa xëye bu la fa kenn jiitu neen yoon woo yoon woom leen tegoon rek xam ne ne wàccu leen ko ba nag ni mas na leen wax léegi itam junj nañ ko léegi ne leen yéen maa ngi dëgg dëkk ba ngeen jëm te kenn mun leen fa kenn mun leen fàtte àgg wax leen itam ne leen dëkk boo dëkk ba ngeen jëm nag na ngeen fexe bu ku leen woo bu leen xuuyu bu leen geesu bu leen taxaw bu ngeen fa àggee nag ñëpp dañ leen fa fekk fekk gam le ga leen fa ñëpp fekk nag mooy seen jataayu tey jii kon nag na ngeen sant yàlla bu baax te gën a góor góorlu te xam ne Serigne Touba képp ku yàlla defal tawfeex ba nga topp ci ginnaawam te Serigne bi moom na aw yoonam ndax la Serigne bi rek ba muy dóoru jóg loola Cheikh Mahodou Mountakha wax ci kàddu mu wax ne ku ma topp ma dem ku ma toppul ma dem Serigne Touba dafa waxoon ne ku ne ku ma topp ma dem ku ma toppul ma dem boo geesoo gis mbooloo si ginnaaw kon moom looloo di doxinam kon ñëpp xam nañ fi mu fi mu fi dëgmal weesu lenn lu may dëddu lépp lu weesu liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu nag ci la ko ñëpp xame woon ba suñ boom teg liggéey bi ci loxoom kon ñëpp seenum xeet dal na seen jot rafet na ci ne ni ko way juróom ya tedd ya tàmbale woon ba mu agsi ci Sëriñ Saliou mu boolewaat leen ak moom nga xam ne lépp lu mu mas di santaane ci yéen moom la yónni moon ànd ak yéen taxaw leen noonu la ko doon defee bi mu fi bàyyee ko tam Cheikh Mouhamadou Lamine baara Mbacké jëlaat diggam ak yéen defaat leen muy seen jëwriñ ci biir ba Cheikh Sidou Moukhtar ak si itam lépp lu ngeen def mu boolewaat lañ leen yéen ak yéen kon xam na ne seen digg moom lenn rek la kon nag boole googu leen Serigne Touba boole tey jii nag day alalam di jëfam kon nag ne seenu xel dal seen yor rafet te xam ne li ngeen doon ci Serigne Touba suñ borom ne la ko ci jëmmam moom mii. kon nag ñuy ñaan ci barkeb sëriñ Touba sëriñ Touba mi nga xam ne lépp lu waaye fas yi moom te defee ko positif rek suñ borom daal lu ko defal ndax moom ku xamut ndax danaa ci nett li benn euh, karama dafa nekk ca Mauritanie bi mu agsee am ci ñoo xam ne miinuñu sëriñ bi ndax booba buñ gisee koo xam nit ku ñuul la rek dañuy jàpp ne wërta jiitu jiite nit ku weex bi mu agsee nag ñuy jiitaloo sëriñ bi naar gaa naara jaaxle ca lool ci biir jaaxle ga nag ñuy yàdd ki sëriñ bi dalal naan ko lu tax ngay jiitaloo poroñ bii mu lay jiite ba naar bu tontu leen am ci lu ko naqari mu bàyyi ba waxtu takkusaan mooy leen kenn koy na këram jullee fa te bañu julli si bu waxtu takkusaan jotee ñu noddu ku kàbbar si biir ne ku ne Serigne Touba teew ci sa kon kooku mooy jëm Serigne Touba Serigne boobu yi nga xam ne moom lañu suñu borom defal nag nga xam ne wax na ne radiya anni sibtahul jilaani alayhi ridwaanu lazi alaani Cheikh Abdul Xaadir Jilaani gërëm na ma radiya anni sibtahu tijaani alayhi ridwaanu mubidil jaani nee na جده أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن رضي عني سبته التيجاني عليه رضوان المبيد الجاني رضي عني خلفاء الأربعة حسن رضا المقربين المتبعة رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سبقت غيري إلى الجنان مع النبي القرش العدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر أجابني الرحمن قبل الخلق سبعين ألف سنة بالحق يقول لي كن فيكون ما أريد وليس يمحوني شيطان مريض درجتي عند الإله ترتفع ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجتي كوني خديم المنتقى أبي يباهي حفظه له التقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه والتقى كتابتي فاقا سيوخ الدربية وكل خير وسيوخ الطرقية قصائدي هادت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي إذا كتبته اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته اهتز عرش ربنا واستبدحت جند العزيز في البلاد kon na bayit yi mënees koo ñàkk a firi ndax lépp dafa tënk jataay bi euh, Sëriñ Tuubaa wax na ne sama xasaayid yi dana yëngal xoloy mala xolo xoloy malaayika yi nee na sama daraja yëkkati kon te dootu suufe mu ko wax na itam ne saa su ma yëkkatee sama xalifa aras dana jaayu kursi yi jaayu waxoon na ne law jiitu xab xabla nuzulil kitaab law fii fiihi wazkur fil kitaabi wala ma lam yakun zalika jaala ihtizashul arshi li qalami badalan min zalika nee na bu ma dikkoon njëkk alxuraan di wàcce da gis lu bëree bëri suñ boom di tudd sama tur ci alxuraan waaye nag ba nee na ba ma dikkee ginnaaw alxuraan nag suñ borom watteel moo ko saa su ma yëkkatee sama xalima aras ak kursi yu jaayoo kon nag li mu tënk foofu rek nee na Cheikh Abdul Xaadir Jilaani gërëm na ma Cheikh Ahmad Tijaani gërëm na ma Abul Xasan Azasali gërëm na ma alxolafaul arbaa gërëm nañ ko mboolem nit yàlla yi gërëm nañ ko yàlla suñu borom gërëm na ko rasulullahi gërëm na ko waa ahlu badrin gërëm na ko kon man lam yakun radiya anna fal karim radiya anni ridan lay cherim nee na kon képp ku ko gërëmu itam sa ñàkkee ngërëm la du ko wàññi dara kon nag seen siyaar bi sëriñ bi nee na muy ñaan suñ borom ci barkeb sëriñ Touba yàlla ko sëriñ Touba tàbbal ci inna allazina ila zar saada qad qasadu ziyaarati faaraxu daarini aw zara képp koo xam ne siyaare si nga ma yàlla na suñ borom tàggale ay bàkkaar ci àdduna ak alaaxira bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiiha naimun muqimun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nañ ñëpp tàllal loxo fu waay nee na tàllal loxoom te suñu àggalee tamit bu kenn jóg nañ bàyyi kilifa yi ku baax kii daal di jóg ñu mën koo ànd ak moom na ñëpp naan amin na ñëpp ne amin aajo waay am na ko fas incha allah lépp dina sotti ñëpp fi lañuy ñuy añee na ñëpp ànd toog ak dal nañu may sëñ bi may nañu yendoog nun muy lu jomb yàlla nu ko yàlla fayal amin amin fu waay toll na naan amin nañu xàll yoon bi fu waay toll na wax amin jërëjëf amin Mbàkke jërëjëf jërëjëf kon buñ jullee tisbaar ba noppi kuréelu jaysun bi ñooy jàng ñooy wéele jàng mi buñ jullee tisbaar ba noppi kuréelu jaysun bi mooy jàng sëñ bi dañoo am yendu incha allah bu kenn dem ñëpp la ñuy xéewloo sëñ bi mel ni yendu jàngam xas day day wéy ba keroog sëñ bi di matal jotaay bi